asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 23 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi mu mel ni ki nag tey sunu làmb moo fi ñëw tey waaye yëglikaay bi day ñëw na tey ci ki nga xam ne moo di Eumeu seen ak tel roi des arènes ki nga xam ne nii daal làmb ji moo ci teg loxo téye ko mu mel ni ki démb nag ba mu xëy moom gëstu ba a ba wax ca moom daa mel ni nag Eumeu Sène moom fi nekk ni suñu li leer ba leer ah daal a baax nepp nekk ci ëpp liggéeyam daal fi nekk nii na koo xam moom jafe na lool lool lool mu mel ni ki daal kon li mu jëm da koo ñor suñu làmb xëy tey dina ko wax ka nga xam ne nag moo jiite écurie moom di xalifa ñaa moom wax na ne na day jàpp leen li na leer naññ Modou Lo na ko leer mook ay mbokkam wala waa parcelle li nga xam ne moo fi déjjatee Bombardier jële fi Balla Gaye numéro 2 du ko fi bàyyi de buñ ca yeggee dina xam ne lépp dëgg la moom daal lii moom mënu cee mucc kii nga xam ne nii daal mooy xalifa ñaa moo xëy tey di wax loolu mu mel ne kii daal di démb kon bu biram ñëwee wax ci mbërëm daal ni Modou Lo Eumeu Sène jaaxalu ko mel ni xalifa ñaa moom tontu na ko ba mu sab-sab ne na ko yow biram waxal loola neex waaye jàppal ngelaw li fi fekk Bombardier Bombardier ko jële fi Balla Gaye day du fi ba muut loo de da koy yóbbu de xalifa ñaa moo xëy di wax loolu kenn koo xam ne moom xëy na moom itam di laaj jëmal ci kanamam mooy Xaadim Njaay un bu caaro yi ka nga xam ne nag takkoon na ngem ba ba xëy tekki ngem bàyyi ka muy waxal nag mooy Gris de ne na ko jàppal yow day jàppal ne kenn ëpp la problème bu lu Reug Reug jàppale ba la moom lépp lu metti lu góor nga daj lu ko raw su suñu yëggee ca bés ba ndax nee na ko dina la duma duma yu metti rëg-rëg yow jàppal wala boo Gris 2 Xaadim Njaay nee na ko rëg-rëg dina la duma duma yu metti te boo sàggane sax da lay dóori nga daanu nee na loolu moom bàyyi ci am xel bu na sa yeggee Xaadim Njaay moo xëy tey di wax loolu ka nga xam ne nag xaritab Reug Reug la moom yëgle gay bi di sunu làmb day nee na jàpp leen sol na ay dàllam nag dem yokkiw dooleem wala xam-xamam ca réew mu nga xam ne moo di États-Unis fa nga xam ne nag la ñuy wax Californie wala California yëglikaay bi di sunu làmb daal moo xëy tey duñu ko wax kii moom bëri na ba daanu moo tax nag wala boog dafa bëri woon ba daan muy soq soq day moo fi daan daan di faal bu yàggul xëy na nag ci sunu làmb di wax ñu mu bëgg a bëril ñu ne ko kan mu ne garga moo ci nekk avance keneen ñu ne ko ku ca des mu ne Moussa Ndoye maa ngi ci ruq bi di ko yeeru bu génnee ma dogale ko bëri ak moom Gris 2 ak Reug Reug itam na bokk nañ ci ñi nga xam ne ni mu ngi leen di xaar waaye kii nga xam ne moo di Quench ak Diène Kaïré mel ni ki moom daal xëy na moom di wax ay dëgg ay dëggam na bu wul de wax na la mu bëgg moom mii nga xam ne nii moo di soq rakki jet ca Pikine ki nga xam ne nii moom fi nekk nii jàpp leen ci guddi gu bët setagul ca leen saraax dugg mooy tafaatin sunu làmb xëy tey dinu ko wax fi nekk nii day moom xamul ban tax lay taxawee ci làmb ji wala fu muy fecce ndax daal fi mu nekk nii day la mu doon yaakaar ci ay combat daa mel ni mbir ma dafa dafa a jaare daal léeb joxe fa tàbbi géej dafa daal fi nekk nii moom combat te na ko tëcc tëcc tëcc yëglikaay bi moo xëy tey dina ko wax ab combat ngi moom boo xam ne nii day waaw jàpp leen su lam ne ne day parrain ba kenn la mooy combat bi dafa wax léegi mooy kii nga xam ne nii mu di Gris 2 ak Reug Reug ne nañ buggaan kii daal moom la lig Nicolas di delloo bu nu yeggee ca mois de juin sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne tamit sunu làmb da caa ñëw mooy làmb ji nga xam ne nii mooy làmb simple ji yëglikaay bi ne day bu nu wooree ba wori moom ndéwénal gi nar naa doon lool lool ndax jàppal sunu làmb ne na galaaya day se njaay fal nga xam ne mooy ca gay njaay làmb dafay am yëglikaay bi ne un million cinq cent mu nga fay xaar mbëre ñu tagal leen ko ca taabal ji waaye yemuñu ca de luy seeseen tamit day jax lool ak yoo xam ne day dafay am loolu bi moo xëy dina ko wax keneen koo xam ne tamit day dafa mel ni moom li simple bi bu na cut buur tamit am na ca cër muy jagsi yéegle kaay am ne fi mu nekk nii day mun ngay yëngu di yëngal di waajal nag di waajal journée bi nga xam ne moom la war a tëgg fukki fan ci weeru juin bu ñu jëm maanaam la 10 juin mu mel ni ki daal kon li simple bi moom bu ñu wooree ba wooree moom takkar naase dina ko def waaye li leer ba leer day jàpp leen ko ma wax leen ko tey jii alxemes la nu nekk koor gi mu mel ni day mu ngay xëccuy dem di de mu ngay dem de waaye loo ci mën a dégg woor neex na coolee fi nekk rek waaye boo wooree saw yaram dana woyof te da nga nekk ci afiya ndax nag lekk moom baax na lool waaye su bëri ëpp te olof ne na lépp tuuru loolu la olof yi wax kon daal yàlla yàlla nag ñu nangul suñu koor te defal nu jàmm xéewal sahadatu daaray ni barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi suivre Leewtoo TV yi ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di sawar a ànd ak yéen ci seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour ma si ànd ak sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay Aïssa ah Aïssa Faye madame Niang lay nuyu bu baax a baax sama rakk comme ni ñu koy waxee di nuyu ñu ñuy suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën nekk si àddina bi rek wax di la ziar bu baax baax di la ñaanal jàmm te di ko saako ci yow di ko ñaanal bopp doomu aadama. Uh-huh. Amin Babacar eh, ñu daal di dugg si jàngat bi démb Modou Lo lañ andi woon eh, fële sa ci Cincinnati tey ñu ñëw ak ki nga xam ne ni mooy Eumeu seen moom nag suñu la am nee gisuñu ko dégguñu ko ma ngay làqatu di liggéey mais lan lay waajal fum ton ni kii nag nga xam ne ni mooy eh, Khalifa Niang di président seen écurie moom nag la muy waajal wax na ko nee na li fi jëlee ki nga xam ne ni mooy Balla Gaye fii. Euh, B52 ba muy bombardier du fi bàyyi ki nga xam ne ni mooy Modou Lo si kàttanu yàlla moom daal foofu la génn tey. waa Khalifa Niang foofu la génn ah wala boog si yëglekaay bi xëy na gëstu comme ni mu ko defoon démb pour xam la ca Modou Lo waaye li ci ëmb dafa mel leen ticc pour ñu xam ko ça veut dire loolu xëy na combat bi moo toll foofu ci kawewaay ak ci bëgg gu mu ko bëgg ba tax na li muy def lépp mun na bu ko loolu tamit yàgg na si làmba ah, parce que dañ na ku ñu xam foo jëm rek xëy na moo tax muy nëbutu moom Eumeu Sène Khalifa Niang ak moom moom wax ja moom tontu na kii di biram ñu sa mën nga moom la tontu parce que bu biram jàppee woon démb nekka ñoom a Sène wala Eumeu Sène a ébranlé tax mutloo am lu muy tiit yooyu mais léegi nag comme la fi jëli Bombardier jële fi Balla Gaye dina ko du leen fi bàyyi waaw loolu nag moom Khalifa Niang mooy écrit mooy président wu Tay loolu ci côté làmb li ma la waxoon rek dañuy toll moment boo xam ne bataille de communication bi day daw chaque jour day daw day daw euh, mais jàppal ne que Eumeu Sène euh, ku daan Bombardier daan Balla Gaye daan Gris Bordeaux daan ñeneen ak ñeneen mën ngaa daan Modou man nga koo daan parce que mbër yooyu mu daan ay mbër waada la te boo xoolee ci biir ñooñu daanante am na fa parce que boo xoolee mu Balla bi mu daan ñaari yoon Balla boobu daan na Modou ñaari yoon Bombardier bi mu daan daan na Modou moom Modou ñëw daan ko premier combat kon gis nga mbir mi ni mun bul bi tourné foofu Gris Bordeaux boo ko jëlee ci biir gis nga fa mu jaar ak Eumeu Sène def nañ 1-1 Gris na ñaari combat ci kanamu Modou Lo yaa ngi dégg mook Balla Gaye mu ñàkk fa par décision euh, wala boog par avertissement xoolal ci seen diggante foofu ni mu jaxasoowee euh, xam nga jaxasoo na voilà làmb mel noonu kon nag bu ñu jëmee ci combat revanche diggante Modou ak Eumeu nag balaa leer nañ nañ nañ comme li ñu ciy wax il faut ñu bëriwaat ba pare ñu xam ndax Modou la mu defoon daf ko tandu wala lu xewoon bés boobu wala ñu xam ndax euh, Eumeu Sène lañ Modou da koo mënoon daan ko wala lu xew ku nekk da ngay wax rek pour gën a dalal sa xel ay supporters et tamit gis li sa mbër di liggéey mu doy la mu dal sa xel loolu moo tax fi mu nekk nii communication yi ngay dégg nga di ko dégg waaw. keneen koo xam ne tamit eh, li mbërëm eh, di liggéey dal na xelam muy Khadim Ndiaye moom itam eh, génn na tey wax ci ki nga xam ne mooy combat Reug Reug ak Gris 2 moom jàpp na ni Reug Reug du ñëw rek daan ki nga xam ne mooy Gris mais da koy dóor ba pare doog koo daan. waaw Khadim Ndiaye ñu koy nuyuwaat di ko ziar encore une fois parce que jàng nañ fi bu yàggul nekk dem na retraite yaa ngi dégg kon ñu koy ñaanal jàmm retraite am boobu yal na ko jig ak njabootam yëpp yàlla defal ko ci daal lu kawe njortam tamit jàmm comme ni ma koy faral di waxee rek waaw moom mooy li wax rek ba tey fi ma la waxoon li ma la waxoon sànq rek ay satu mooy dikkaat actuellement dañu toll ci zone boo xam ne nii bataille de communication bi day day am mais Xaadim Ndiaye mbër mu bëree ba bàyyi bëree la comme niñ ko xamee dëkk caaro yi di doomu caaro yi Reug Reug tamit di doomi caaro yi di seen rakk ñu uuf ko di xam ci li muy nekk kon la muy def day dal seen xel bu ñu demee nag ci li rëg-rëg di wane ci lutte simple nga xam ne mën nañ tey lutte simple moo ci numéro un parce que am na loo xam ne ku ko waxul tamit ku ko joxuñu tamit da ko wax wala ku ko waxul tamit da ko joxuñ loolu moom yàlla def na ko numéro un moo ci nekk tey ci lamb simple bi loolu moo am bu ñëwee ci affaire frappe tamit yàlla nga koy sutural amagu ci defet ba pare nekk xale bu rëg-rëg dana soxla seen xel ak seen xalaat yaakaar naa dinañ ko gën a gonfler gën ko pousser wan ko ne kii doo moroom war nga ko mën a duma daan ko waaye nag ndax duma bi daan bi ndax dina yomb loolu tamit question bu jara bàyyi xel la parce que giri day itam seetloo guñ ci làmb fu ko mbër dumaa daan ko gisaguñ sax fu mu daanoo rëg-rëg it mm, kazalika naka noonu kon combat la boo xam ne bu tar la mais l'essentiel que ci côté staff yi jàppale yi ku ci wax rek da ngay jëmale sa boor te olof na nag ku wax feeñ waaye ku waxagul kenn xamul foo jëm Xaadim Njaay nag loolu moom du loo xam ne nii lu parce que euh, li mu war a def la def la mu bëgg la wax itam bu sañoon rëg-rëg Gris 2 dina ko dumay duma yu metti daan ko jële bu rëy Tapha boo ko laajoon loolu lay wax ndax jël nañ fi vidéo vidéo bi léegi mu génn ba da jonn jël nañ ko comme kuy analyser mais dégg nga la mu wax moom joxul benn sens boo xoolee rëg-rëg loolu nag wane na dafa far parce que loolu mooy làmb ku ne dangay ràcc jëmale sa kanam waaye nag réalité géew la ma waxoon rek gis nga su Malick Ngom génnee seen diggante ba suufle wala wala Sitor wala Babacar Diop wala Matar Diouf wala Mathieu xaw ma koy arbitré su keroogee fala liy feeñ di feeñ ay sa fay waaw waaw kër de géew dafa am comme ni ñu koy waxee chaque jour ñu dem seeti ki nga xam ne ni mooy soq ginnaaw bi mu bëreek euh, Nandi Fall moom nag ñëw na ci ñi nga xam ne nii foofu la teg ay bëtam muy ñoom euh, Moussa Ndoye ñoom Garga Mbossé ñoom euh, Quench ñoom ki nga xam ne nii mooy Reug Reug Gris ñoom jën punch moom daal mi ngi xaar combat yi des. waaw soq day moom xale la boo xam ne espoiru làmb la espoir tamit si Pikine parce que yàlla def na mu demoon amoon nekkoon ci benn temps boo xam ne baaxoon na trop mais a xale la boo xam ne euh, vraiment daal carrière am ni mu ko entamé baax dama naan sax dara yàqoogu ci parce que xale la te tey macha allah bokk na ci xale ñuy compter mu daan bëri daan di faal mu xëy tey di laaj. ay gargamboose Mbossé Moussa ak ñu mel ni ki ñooñu ba ci Gris ak Reug Reug loolu lépp ay combat la yu lu war a mën a neex la waaye dafa am foo xam ne la ma koy doole rek mooy bu mu fa tardeel boppam waaw lu mel ni la cas de Moussa rek wala ka euh, nga xam ne mooy Garga Mbossé bu mu fa tardeel boppam bu gisee leneen na ko jël diggante jën kayre boobee ak Quench bu ko neexee sam fa ndëndëm waaw kafa daan mën na ko mën na ko bu ko neexee gestu ko bëreek moom mais ka daanu bu keroogee pour mu bañ ko mën naa jafe war na ko mën a war na mën a bëre ak moom parce que moom vraiment mbër la boo xam ne macha allah am na li muy xam bëgg na li muy def xale la tamit waa Pikine bëgg nañ ko te vraiment tamit booy dégg ay waxam communication macha allah baax na moo ko rëg-rëg boo xoolee ci at yi si ginnaaw dox nañ ko façon dox bu ne mais yàlla dogal taxawu kon waaw tey nag xëy na Reug xaw na def yenn pas yi waaw du ma ne duñ actuellement nii duñ bëre mais xëy na mën na fa xaw a am lu ko kale tuuti tuuti tuuti quoi mais. Babacar mbër bu nekk da nga am ambition am sa plan de carrière boo xam ne tracé nga ko noonu la fa demee kon nag moom li ñu koy wax mooy ah na gën a liggéey rek loolu mu def bërki démb ak Ndande Fall bu fekkee continué na ko si kàttanu yàlla moom bañ ko dina jafe ndax dafa bokk si Siteu Siteu ginnaaw bi ñu doxee ay combat mu tudd fi ay adversaire bu tëw euh, taxaw Siteu nag jël na avion bi daal dem fi nga xam ne ni mooy États-Unis peut-être dafay dem Babacar comme ni ñu ko tàmmul gisee dem préparé wu defarwaat fii ak saison bi di dellu si mu mën a andi forme espérer combat waaw parce que ren moom xam naa ne yàlla dogal foogatuma mu mën cee bëri parce que saison bi presque jeex boo xoolee ah loolu nag comme jeex na ah, la ngay def mooy boo pr mën ci temps bi ngay am dem voyager boo mënee dem nga dem comme noonu mu ko defee dem États-Unis yokku ay entraînement am gën a pour xaan pour xaar prochaine saison pour que mu mën am adversaire mm. waaw parce que waaw bañ lu la bettu quoi parce que daas fanaanal moo gën wër parce que c'est champion la bi nga xam yàlla moo dogal taxawul ndax rek laa mel ni ci mook Ama Baldé bañ na presque saye yàlla def taxawul mook Papa Sow même chose mais nag euh, waaw bu yoon jeexusul bu yoon jeexul waaxusul du jeex saison bii di ñëw daal yàlla nañu ko fekk tal ko yaakaar naa ne war na mën a bokk ci mbër yi jëkk am adversaire parce que taxawaayam ci làmba may na ko lu mel noonu daal ah. encore ñu jeexal ak euh, lutte simple bi dem euh, fee nga ne nii mooy euh, nii bi ndax lendemain korité incha allah ay gala yu mag lañ fa bëgg teg 1 million 500 1 million 200 mille ak 5 nag nekk loo xam ne nag ndëwënal la carrément Babacar. waaw ndëwënal bu doon ci diggante Gaye ak Lul Sessène waaw Lul Sessène ma ciy nuyu Paata Ñax parce que daaw yàlla def na demoon naa ci làmbu Lul Sessène boobu vraiment ma koy nuyu di nuyu waa Lul Sessène yëpp di nuyu tamit ko nga xam ne nii mu ngi dëkk ci côté boobu di sama jigéen di sama lépp muy madame Diouf Louis dëkk Ngoye daaw boo xoolee lul saison boobu drapeau ba borom këram lañ ko tuddee woon di sama mag di sama lépp muy docteur Macoumba Diouf kon jàppal ne foofu moom ndewenal dina fa am ren bu baax baax ci diggante Gaye ak lul seeseen mel ni ki daal buñ ko rété ba pare moom si kàttanu suñu borom yàlla nañ ko fekkee ak ah lamb simple ba day day waa ndéwénal bi day déclenché daal ci diggante dëkk yooyu mm-hmm. waaw waaw Babacar na mbëri waajal rek parce que mise yi am na solo trop un million cinq cent un million loolu moom du caaxaan jar na jar na julli ba pare rek daal dem daal dem takk dugg si dëkk bi si loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di nuyu Maam Talla suñu Baay Faal bi di nuyu Ousmane euh, montage di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee Leewtoo TV mais Babacar tey dañuy souhaiter joyeux anniversaire kenn koo xam ne nii Leewtoo la bokk yor organisation Leewtoo muy Cédric Diédhiou Cédric tey la anniversaire am ñu koy wax happy birthday to you dundal lu bëree bëri bëri Cédric. waaw Cédric waaw joolaa jaamu séréer kon Cédric yàlla naat yi gën a yokku man gi yokku wér gi yokku yàlla barkeel njaboot gi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di la ko ñaanal tamit bi nga gëm waaw parce que eh, moom ndeysaan suñu chrétien ak Sénégal fii xam nga benn lañu ñun ñoo bokk lépp di ko ñaanal parce que Cédric suñu jaamu joolaa la ñun séréer yi waaw ba pare noonu la soppi sëñ Saliou gis nga loolu mooy Sénégal quoi loolu mooy réew mi parce que loolu moo tax réew mi neex doo xàmme ki yëkkale ñun ñëpp benn lañ bokk ndey bokk bàyyi kon Cédric yàlla na yàlla guddal fan yi mi di nuyu kenn koo xam ne tamit ndeysaan dañoo daje léegi ci suba mu wan woon ma cofeelam Aïssatou te am na yoo xam ne nii dafa foor parce que damay wax ne que Babacar dafa gul war a tax nit ñi di ko teg fenn fi kon ñoom suñ may teg fenn fi rek dama naan ñoom ñoo amee xol bu rafet ñoom ñoo baax muy ngañ sow nekk ca États-Unis suñu daje léegi ci suba côté RTS noonu ndeysaan mu wan ma cofeelam yàlla xam ne ma tey ji laay dellu États-Unis mais bëgg naa la lool boole ma ko maak Lamine mu mel ni ki tamit sama digganteeg Lamine ni ko nit ñi loo yàlla nañu yàlla gën a dimbali yàlla gën koo sàmm parce que sama rakk la sama xarit la te dama naan micro bi boole ba ñuy xamante yàgg na du tey kon ngañ maa ngi lay nuyu bu baax a baax mais commande naa Falka jël Diop ñoom Sarr soxna Anna Cheikh Bintou Fall El Hadj Ndour depuis Dubaï di nuyu ñëpp mais di nuyu tamit sénégalais yi nekk fii rawatina ñoom xam nga xaadim ñoom Massamba Dieye waa Parisol ba ñoom Abdou Diouf marché Tilène maa ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu waa marché Tilène yëpp ak ñoom Mourou Diouf di ballu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm taala du ma ko fàtte Serigne Lebou ak Ousmane le monteur nday ko ma Fall Fleur Thiam bëgg naa ñëpp daal. ba suba incha allah.